ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bàyyeekoo fii ci Xidma production da ngay bës fii ñu bind s'abonner boo noppee teg ci cloche bi Xidma production la chaîne du mouridisme assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha taxa fii fi Touba ñu ñaan mu yàgg fii lool te ànd ak wér ba naa li nga xam ne am na ko ci lislaam am ko ci liggéey Serigne suñu suñ boor may ko kàttan ak wér ba lépp mu àggale ko ñu ñëw fii di yëkkati kàddu yu gàtt di kàddu yoo xam ne yaa rekk la cant ak ngërëm ak ñaax ak soññu ndax eh, Cheikh mu Mountakha yàlla dafa def ci moom képp ku fi nekk Serigne Touba suñu borom dàq na ci yow adduna dàq na ci yow bakkan moo doon Serigne Touba te Serigne Touba moo doon Rasulullah kon wa maa yantiqu anil hawa lépp lu mu wax rek lu yàlla digle lépp lu mu wax rek lu suñu borom santaane la. ndax li sëriñ Touba waxoon rafaatale na ko képp ku ko fi toogal toogootu ci mujjum njaarim bi ñenn ñi ñëwee di ko digal ne ko dañoo bëggoon nga doxale sa diggante ak tubaab yi diw ndax mën naa am ñoom danañ gën a mën a wax ak ñoom te kon jàmm dana gën a mën am si digg ak ñoom sëriñ bi ne leen loolu de duma ko def. ndax sama digg ñoom kenn doyuma ci ñoom ndax ku dul man rek mën nañ la xupp wala ñu xëpp la mën nag mënisuma xupp mënisuma xëpp Serigne Touba nag loolu la ko suñu borom defal képp ku fi nekkal tam doon doon na na loolu kon nag dañuy sant yàlla bu baax bi ñu Serigne Touba fàggulee ay kilifa yu mat yu mat lañ doon képp ku ko fi mas a nekkal rek Serigne Touba def na loolu ci ba yàlla def moom mii nekk fi di Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na suñ borom dëgëral ko te guddal aw fanam tamay ko kàttan ak wér muy jëmm joo xam ne nag bokkam yi mu bokkal Serigne Touba li wax naan lu doon rek ñoom laa ko gën yéene moom itam yàlla def na loolu delluwaat ci moom ñoom ñëpp yéene nañ ko jotaay bi ñoom ñëpp ko yéene ndam wa yusiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun bu ak dundut teewoon ak faatu teew ñooñu ñëpp mën ñu mën a joxe seeni bakkan ngir moomu nekk la loolu nag lu ko yàlla defal la ma dindi ci seen seere rek di kilifa bu bu mag bu baax ku maandu goo xam ne lépp lu mu wax rek ñépp xam ne ne waxiwu ko ci bakkan muy Serigne Cheikh Mbacke Serigne Saliou ci njëlbeenu xilaaf ak Serigne bi damaa wax ne ma Cheikh Mouhamadou Mountakha de jataayam bi lim may nuróor mooy wa yow ma aslama jibriilul amine ata بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار ñëpp maase ci nangu mbiram loolu nag li ko ko may mooy li Serigne Touba wax ci nax ji rek wa min saadatil fata xaysu xasat allaa yuraddahu fuaadu zirasat Serigne bi dafa yéene ñëpp jàmm mandargam tex gi ko suñu borom defal nag moo tax benn xol du ko delloo moo tax tey biñ nekkee ci biir oto bi maamoom ak sëriñ Isaaxa rakam mu jëm ci jullikaay ba damaa yéemu ci mbooloo mi xër gi ñu am ci moom ak ni mu ko yëgatee moo wax sëriñ Isaaxa Cheikh Mahoudou Bachir ne ko li ma gën a yéem ci mbooloo mi de li muy bari bari boo koy seet ñëpp ay ndaw lañ ay ñaar kay jëm suuf wala lu ko lu ko lu ko weesu tuuti loolu nag kenn wane na ne mbirum Sëriñ Tuubaa lu adduna yi gën a doxee ci kanam la jëm ndax ndaw moom ak jigéen ñoo yor mustaqbal ma àgg ci ne ko li ma gën a yéem mooy jamono dafa àgg ci ñëpp bëgg Sëñ Tuubaa doon seen kilifa naa ndaw ñi day ne ruus nañ sax kenn di doon seen kilifa ku du sëriñ bi loolu la ko suñu borom fay kon nag liggéeyu Sëriñ Tuubaa bii kenn da cee doonu dara lépp Sëriñ Tuubaa ko faggul boppam loo ci gisit ak nu mën a demee rek Sëriñ Tuubaa ko faggul ndax li gën a jafe mooy xol yu nangu te lépp ñu nongu ko joxe ngir sëñ bi kenn ku ci ne la ngay denc sa kër la ngay jox sëñ bi gënal la ko loolu nag yaakaar naa ba ci histoire ul islam ba nag ni kenn mës ko am jur nit joxe jël sa alal bañ faa dese dara sëñ Tuubaa ku jëkk ba nag ni ko moo tax ilay yaqaadallahu maalam yukku ni boo koy firi fu neer danga ko fu mën a firi ndakaaru gi itam مفعل خير الله في دكار كل أذن ليجره مكاو فخي ينكو فلون فخير مطرون لول متي لول نغا خاني سيرن بي فوني جارال نانكو فو لو ني ديف نكو واي في رك لي واخني بماكو فاتلكو مو متي سي سما خول بما بوغ بور رانيان يد ديم جهاد ديف جهاد واي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركو خمال كو نكو يانتي جهاد دي غنا مك اذا سكرت ذلك المبيت وذلك الأمير وثبوته طارد إلى الجهاد بالأرماح النفسي ولكن زب عن المهن كون سرين باكي يوفي دي جوري ني سرين بيش نكارو سرين بانكو سانتو باه ديكو غرم سانتي غرم دي نك موي تاخوايام ndax li mu fi andi tay moy moy li ci gëna tuti ndax joxe na jëmam joxe alalam joxe xalaatam joxe doole ba mu tut dara ci bofum te loolu man mën naa mën naa koo seere kon sëriñ ba nga koy sant cant go am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waaye na xam na ki muy jëfal ndax jëfal suñ Tuubaa moom jëfal sa bopp rek la waaye nag jàmbaar bu jëfee ba kenn mënu ko ca li muy def wares na ko kañ sant ko kon sëriñ bi nga koy sant di ko gërëm cant gépp na mu dolli ko ñaan mm-hmm. ñaan leen mooy lam ko seere lool ne ko li ngay wut am nga ko mooy ngërëm suñ Tuubaa ngërëm Sëriñ Tuubaa loolu mu ko seeraloon nag nee na mi ngi ko ñaanal ngërëm la sax ci moom dotti ko ci moom ba àgg ci ak njabootam ndax tey jii kat xam ngeen ne bis bii waa Ndakaaru la ko sëriñ bi doon te mooy seen jëwriñ ngir rek am yërmaande ci ñoom ngir xam ne bëtu yërmaande bu leen xoolee wala mu wàcc ci suuf si rek danañ am jàmm danañ am danañ am danañ am xéewal moo tax sëriñ bi ñëw kon nag bu ñëwee. mu jëf lim lu rëy lim jëf ci ngan gi te ngan gi kat xam ngeen ne lañ def ci togg yi rek ëpp na juróom-ñaar fukki million te nee na sëriñ bi ay téeméer nag des nañu kon mbirum Sëriñ Tuubaa moo deme noonu li nga xam ne taalib yi ko doon barkeeloo nag lépp dem na ca moom ci boppam nag moo ne la Sëriñ Abdou Lahad daa wax ne taalibe bu ñu jox a sëriñ bu ñu jox addiya te doo jox addiya daa mel ne ku yoroog waxandew gaalam ku fóot ay yéreem ba mu jekk rek mun na dencal la bu ñu demee bàgg ci bisu waajtaay ku ne laajub yéreem nga jox ko doo am loo sol kon moo xam ne di ñi nit ñi itam war ngaa génne ci sa ñaq bopp loo joxe. Mm-hmm. moo tax mu ne tey day sant sëriñ bi yëkkati lu toll un milliard jox ko sëriñ Touba. addiyee milliard nag sëriñ Touba dégg na ko ba tàyyi waaye yaakaar naa sëriñ Touba rek ku ko mos dégg joxe ko ba noppi di ko xeeb. kon dañ koy ñaanal dërëm bu ci ne rek yàlla soppil ko ay tuyaab yu bari te suñ borom noonu lay faye man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayyi'ati fala yujza illa kon nag lii aw la ci képp koo xam ne yàlla defal na la wërsëg nga xam ne wërsëg kat ku yàlla defal jox la xolom nga def ko ci baax war ngaa sant yàlla bu baax suñ borom nag xam na ne ci nit moo tax mu ne wala yasalkum amwalakum yasalkumuha فيوفيكم تبخلوا ويخرج أدخالكم خمنا نع الله دفع تق تخلوا برام وعشرين توانك نعم لوكو نب لوكو لب لوكو نبي هذا سولو الله جي سيا الله لوكو يدفع المرة نيني جو حسن على الجن الجن اللي نجدين شو روحنا نك على الدوام جاي دين خول بعفين كتابنا نهني تفو الله لم تابي أبخلوا دكوا كنا بوين كسر نفينا كرسين توا لوني جو حكمه لب دفع دلوا سيا الله kon nag sëriñ bi ko sant di ko gërëm di ko ñaanal mucc ak xéewal ak barke te lii mu jëf kat yàgg na koo jëf ndax man li ma xam mu def ko ci liggéey sëriñ Tuubaa bi ci jumaa ji wax ma nag xew-xew yi mën na ñeent ci wala mu ëpp ci lu mu wóor kon lii day lu feeñ rek waaye li ci def ëpp na loolu kon nag loolu sëriñ Tuubaa rek la ko yàlla defal waaye nag ak cant rek mhm. maa ngi koy wax sëriñ Yuusu Jóob nii di jëwriñu daayira xisbu tarxee léegi di ko ñaanal suñ borom dëgëral ko moom ndax dañuy waajal ab siyaara bu mag mën a ko sëriñ Tuubaa de kuy kuy kuy jug jëm ca kenn du la yërëm la ma waxoon ak Cheikh Ibrahima Fati ne ko bis mu woo leen bañ dikk fekk yeneen sëñ bi di sant dafa bari sëñ bi ne ko ab liggéey laate de ab liggéey laate ndax liggéey nu muy toftaloo rek moo ne ko mbàkke de li tax saa soo ma wàccee du ma nangoo wàcce mooy yaa ngi njëkk xëy ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ba na gën wàcc ko koo ko xool ci sëriñ bi ñaan xam ne li muy def jom rek la ko defee ak positif ma ne ko li may yéem ci yéen yéen a ngi jóge ci koor gi li ngeen ci daj yéen a ngi ci këru xasida war a defaat ab siyaar bu mag boo xam ne dañuy jaayante sëriñ bi wëlbatu ko di waajal màggal Tuubaa te liggéey sa ëpp ñetti weer loolu nag Sëriñ Tuubaa rek ko attan te taalibe Serigne Touba yi nag Serigne Touba leen ko faggul ndax ñoo dàq joxe ci nit ñi waaye ñoo ëpp wërsëg ñëpp kon nañ xam ne fàggu def Serigne kon nag le Sëñ Abdou Lahad waxoon rek ne luñ góor ci sëñ bi doyut ndax luñ jëfu ci sëñ bi àdduna dana leen ko leb te àdduna lu mu la leb du la ko delloo kon loolu ñëpp ci war a jàng te xam ne addi yi nag passif rek ci am solo ndax ki mën a joxe milliard ak ki mën a joxe dërëm ndax ko sëriñ bi leer la woon ci gànnaar nett woon naa ko seen siyaare ba daaw ki joxe dërëm te am passifu milliard mel na na ko joxe milliard waaye nag kon euh, dañuy sant ñëpp di gërëm ñépp te xam ne nag taalibe yi moom li ñuy joxe soxlawu ñoo xam fu ñu koy def waaye nag lu ci tàbbi ci sëñ bi nag day tax muy gën a sotti ko euh, maa koy wax sëñ Yuusu léegi la sëñ bi waxoon sëñ ma Juuf jatti ne ko Cheikh Ibra Fall de li mu wutee ñëpp mooy bu ma ko liggéeyloo am néeg mu liggéey ko ba néeg bi àgg ma kos almet taal ci wala ma ma di fa liggéey yonent bi di fa jàmm yàlla ñooyam ci moom loolu nag sëñ Tuubaa rek ko kon nag dañuy sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan dëkk bii di ndakaaru nga xam ne ku tedd ki wàcc na fi di borom jamono yàlla na fi suñu borom wàccee xew ndax sëriñ ma saxir mbay kat ma mas Cheikh Mamadou Fadil mas na koo seeti mu tari ay bayit yu am solo mu sadd ay bayit ne ko lillahi qawmun iza hallu bi manzilatin xallan nada wa halat fil jawi xalat fi ljawi anwaaru تستاقهم كل أرض ينسلون بها كأنهم ببقاه الأرض أمطار سيح مودو فايل ne ko إذا لقيتهم أو كنت زائرهم بيومهم فارخك فارخك الدهر أو زار نعم سي أحمد سخير سي ما سخير بعدين كأبغون تبرهم ده دون نتو يالك مغ نبنيت لنا من مستا نيو تنجيرم كوهم دكو فيك شيخ فال منو تيجي معي دكو فيك لا شيء أرسل شيخ محمود مصطفى بيجن أم بيجي dugg ci neeg ba ci ak mu genn mu ne picc mi mi may taggi diw doomi diw diw ne indi suuf ma ñaar ko ñu dem tubb suuf indi ko mu ñaar ko naka mu rek ñu taggi ko kooku nitu yalla cheikh mamadou fadil nak ñepp xam nañ ne ko xam ne waxuma la lo ñaan waye lo kafe sax suñu borom def ko kon nag ñi ngi sant ñepp di ñaan na ci daraje Serigne Touba ci wacc gi fi Serigne bi wacc xam ngeen ne dëkk bi jamono yëpp ni ñaangi jambat jàmbat ñàkk sécurité te sécurité kenn ni ko suñ borom waxee ci alxuraan fu mu newut kenn du tale jaamu yàlla falyabudu rabba haazal bayt allazi at'amahum min juu'in wa amanahum min xawf kon yàlla na fi suñu borom defaat barke ba dëkk bi newaat ci jàmm ndax jàmm ku ko amul dootal dara ba ca des it ñi ngi masow sëriñ bi sax waroon na fa yónnee suñu bokki dëkk bee di tiwaawoon di mbokki jullitam di mbokki tam xew-xew bu diis ba fa wàcc na ngeen xam ne loolu mbas la mbas la mu rëy am nattu la nattu nag jullite ko moom mbugal yéefaru ko tax a jóg kon loolu nattu la waaye sëriñ bi nee na mu ngi yëkkati kàddu njàll di ko teg ci ki nga xam ne mooy kilifa dëkk ba di sëriñ Babacar Sy Mansour alxalifatul am di tarixati tijaaniya ak mboolem jabootug Cheikh El Hadj Malick si gépp ak mboolem ña fa dëkk ci dëkk ba bayut kenn mi ngi leen di jaale ñooñu nga xam ne ay mbokk lañ di ñaan ña fa bàyyi ko te ñi ci ëpp di ndaw wala bu fekkee du lépp itam day cëpp ëpp ay ndaw lañ suñu doon def leen li ñuy wax asalafu salih dawalu biw ndax ne ñoom toggaguñ leen jëf ba bàkkaar woon la waaye su yàlla suñu doon bool leen ci mina salafi salih Sëriñ Tuubaa rek lu ko suñu borom may rek. may gi day continuer wa am si yun si nii bi yom beexat lu lu mujj rek day gecceel la ko jëkkoon mas wax sëñ Masamba Diop Samb ne ko Masamba mu ne ko Mbàkke mbaa mu ne ko mbaa xam nga ne ak Dame Sane la Dame mooy denc ko ay mu ne ñu fas yéene doone lantinoor rek mu ne ko loolu képp koo xam ne def nga ko ci buñ demee ba fa nga xam ne kenn mënu fa amul diw danaa ko yëkkati na sa diw gaa ngi kon lii seen jëf ji ci loolu rek la tàbbi Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ne milliard bari na lool bi ku ko sëriñ bàkki yu yëkkatee jox ko ko mu tegaat ko ci sama loxo ne ma lii kat addee Sëriñ Tuubaa nag addee Sëriñ Tuubaa nag ci compte Sëriñ Tuubaa rek ko war dugal kon daal koy jël dugal ci compte Sëriñ Tuubaa bi moo tax fi saa ñu woo waa banque islamique bi nga xam ne fa la war a dugg ñu ngi toog di ko wàññi ak njabootu gi Sëriñ bàkki yu fa yebal ak doom ak i jarbaatam ñu ñëw wàññi ko verso ko ci konto seigne touba bi mo xamni adde seigne touba la kon ñi ngi jeexal foofu kàddu yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yow yaay ngir ngay man di jot vidéo yi am solo yi bayiko fi ci Xidma production da ngay beus fi ñu bind s'abonner bo noppé tek ci cloche bi Xidma production la scène du mouridisme